leen ak sen sen entreprise 3e menuiserie métallique Mansour da ngeen a bëgg ay bunt waaw fer mu di métallique aluminium wala sax ay inox jege leen ni ñun waa menuiserie métallique Mansour ñu defalal leen ay design yu muccu ayib yaay tànn sa bu la neex waaw waaw si mu lay neex mën ngaa ñëwit def sab commande design ñu defaral la ko ca na mu gën a muccee ayib dénk leen ma rek seen nopp ma wax leen lu ci dàkkati danga bëgg ay literie rampante escalier ñu gën ko xam ci garde fou chambre à coucher mini salon wala sax nag ay plateau télévision ñun waa entreprise troisième loolee lépp dañ koy defar ak defarina gu mucc ayib wax naa leen ko ca ba muy teel yéenay tànn seen bu leen neex menuiserie métallique Mansour benn la fi ña nga féetee sa caaro yi tali jàllo si suufu pont bi jànloog kër sër yi boo ñu bëggee jot wala nga bëgg am ay information sunu entreprise bi di menuiserie métallique Mansour mën nga ñoo jot si 77 404 83 94 wala sax si 77 975 75 95 menuiserie métallique Mansour la qualité notre force wutal ndaw yi xëy nekk mbébét bu président de la république Macky Sall ci loole forum pour le développement de Pikine desuñu ginnaaw benn yoon ba tax ñu amal benn ndaje ngir waxtaanee naka la ñuy def ba insérer waaye tamit seetal ndaw yooyu xëy Amadou si nekk président ODCAV waaye tamit coordonnateur bu boobu forum yoroon seen kàddu dikk ak ñun ci solos boobu ndaje. lii xew nii tey dafa tombe dafa fekk maanaam ci Pikine am ay ndaw ay mag yu daje woon pour xool. ay pexe yu ñu mën indi ci ñàkkum xëyu ndaw yi loolu it wax dëgg yàlla mi ngi tuddoon Le biñ ci a novembre la woon kon fekkul woon xew-xew yi am wax dëgg yàlla forum bi bu xew-xew yi amoon dana am bu xew-xew yi amul dañu ni du ay département bi ay ndaw yu représenté ay yi nekk département Pikine bi la ñoo fi solo tey bi wax politique emploi bi nga xam ne nangu nañ ni doxul dafa particulièrement département Pikine ndax kuy wax ay jafe-jafe ci réew mi mënoo cee génnee Pikine ndax li ëpp ci nit ñi fii la ñu yeewoo buñ fiy xeet fii la ñu yëngoo wala ñu fi jógee dañuy dem ndakaar di yëngu ji ñu jàpp ni ñoom ñoo ëpp ay jafe-jafe ñu jàpp ni nag ñun suñuy jafe-jafe ñun waa Pikine dafa wuteeg jafe-jafe yi par exemple waa Linguère wala waa Casamance wala waa Fouta. ginnaaw loole moom sax mi ngi sàkku ci président de la république mu jël ay dispositif ba képp kuy ndawu Pikine rek soo amee ay mbébét wala soxla ci wàllum financement ak formation nga amalee ko fële ci Pikine au lieu que ngay génn loolu di département. waaw loolu lu ñu am yaakaar ndax ñun ñu jàpp ni dafa war a am une discrimination assez positive boo nga xam ni day concerner département de Pikine dañu bëgg moom kuréel gu nga xam ni day nekk fii ci Pikine. nga xam ni ku jóge yëmbal lu mu seer seer boo paasee ñaar fukk mën faa yegg boo fa yeggee li nga soxla lépp kenn du la ni maanaam fii la ñuy xoolee sa projet ki koy financé ma nga Tamba wala ki koy financé ma nga dakaar ki koy xool ak ki koy financé ki lay accompagner ki def suivi bi lépp daje loolu it wax dëgg yàlla yamuñu waxuñu rek état bi na ko def dañu wax ni état bi su ko defee na ko teg ci loxo yi waa Pikine na ko teg ci ndaw Pikine ñu yoral ko seen bopp di saytu état bi li nga xam ne la ñuy xaar ci moom mooy muy def bi en amont di def suivi bi mais doxalin beeg liggéey beeg li mu laat jàpp nañ ni Pikine am na ay capacité ak ay compétence yu mat sëkk yu ko mën a yore yu nga xam ne du laaj kenn di ci ko loxo. moom Amadou Sy sax nekk coordonnateur bi moo ngi ñaawlu financement yi fi jotoon a jaar di duut baaraam li nga xam ne mooy DER di sàkku ñu audité ko. fii ci Pikine ku nekk dégg na kàddu conseil départemental de la jeunesse ci président bi ci président wu Pikine Nord bi muy Alioune Badara Fall ak yeneen kuréel yi fi ne yëpp ku ne ŋàññ na financement yi nga xam ne moo fi doon am ni mu doon doxee amul kenn ku ko ŋàññiwul. ñun waxuñu ni dañoo dañuy dimbali état rek li état def lépp baax na jàpp nañ ni lu bari baaxu ci woon te deere yées sax li fi jaar lépp ci liñ jàpp ndax li mu jot ci koppar amul benn structure bu fi mës a jaar bu ñu toll te ba léegi chiffres yi muy joxe amul fenn fu mu ko joxe nit ñi ànd ci barki démb bi ñu ñëwee fii ci Pikine ci ci CDD bi chiffres yi ñu fi joxe ñëpp a ko contesté moom deer li ñu war a njëkk def ci moom mooy lijjanti xaalis bi mu ko joxoon fu mu ko dugal ba pare xaw ma nuñ koy tuddee xam nga loolu moom tur bu xaw a diis la léegi mais nañ xool xaalis bi ñu ko joxoon fu mu ko dugal ba pare li ñu bëgg nag mooy xaalis bii di ñëw moom wax dëgg yàlla ñun ànduñu ci ñu teg ko ci loxoy deer ak ñu ni mel ginnaaw loole moom tamit mu ngi sàkku ci li nga xam ne mooy président de la république mu boolewaat waa Pikine ci seen moomeel notamment li nga xam ne mooy arène nationale bi ak marché Thiaroye yeeg lu ci mel ni Icotaf. lépp loo xam ni saafara la pour saafara xëyu ndaw yi wax dëgg yàlla ñu ngi koy laaj. dekkal yi fi nekkoon wax dëgg yàlla su ko jamono laajee ñu xam ne bu dekkee dana mën a dund bëgg nañ ko mais li nga xam ni moo fi ne te teew fi loolu nañ ko delloo waa Pikine comme ni ko président waxee léegi muy marché bi muy seeraas muy euh, arène bi arène bii ñu nekk nii suñ sañoon doomu Pikine yor ko ndax ñun ñii fi toog ñëpp defe naa man ñi ma fi gis muy yéen ñii ak ñi sama ginnaaw ñu ëpp ci ñun biir Pikine lañ dëkk te defe naan ku fi duggul benn yoon bi mooy sa ñaareel yoon nga fi doog a dugg parce que simplement jàpp ñu ni doomu Pikine yi ñu fiy fi ne day xam ñi fi ne xam nañ leen bu fi doomu Pikine nekkoon waa Pikine dinañ fi ñeme di fi fréquenté xam li fi ne di jariñoo infrastructure bi ci fàttali président de la république dina génne ab enveloppe bu toll ci quatre cent cinquante milliards ngir suqali waaye tamit wuutal suñuy ndaw liggéey ñiy laaj rek koppar yooyu mbaadu nax saay comme yi fi jotoon a jaar.